jëf mbokk yi amati mbégte ak kontante bu baax a baax a baax yéen fii ci Sénégal Buzz 221 mbokk yi ni ñu koy defee ak yéen rek saa su di leen daralal ay ndaanaan yi nga xamante ne yéen a ngi leen bëgg gis fii ci Sénégal Buzz 221 waaye ni ko noonu rek tey la ñu seet si koo xamante ne nag min nañ ko fii ci rédaction bi di Sénégal Buzz 221 tey nag ñu seet si ko bëgg waxtaan ak moom ci lu bëri waxtaan ak moom ci actualité bi nga xamante ni jamono ji mi ngi taxaw ci réew mi nag jur fi polémique bu rëy nag waaye Pawlish mii nga xamante ne nag mooy ndayu mbilli gi tey moom laa bëgg a waxtaanal frère maa ngi lay siyaar sama waaw ma nga lay fay bu baax a baax. Eh. sama xarit sama lépp ah, di nuy sama xarit sama sëriñ. Mm-hmm. mi soxna Ayda. Mm-hmm. sama wasila kii tax kii tax ma bëgg ko. Mm-hmm. kii tax ma ràññee ko kii tax ma fonk ko. Amadou laa di wax leen te tudd ma ko ci àddina. dëgg la. sama xarit la. sama sëriñ la. sama naataango la. ku ma fonk la. ku ma yërëm la ku ma bëgg la. muy cant maa ngi nuyu cantaakoon yëpp. bi mhm. nekk Bordeaux. Mhm. képp kuy taalibe Soxna Aïdara rek maa ngi lay nuyu di la fay bu baax baax. Mhm. am ngeen sëriñ bu mat sëriñ. am ngeen jigéen ju mat jigéen. am ngeen jàmbaar ju mat jàmbaar. ngeen ku baax. am ngeen ko xam àddina am ngeen koo xam ne si xel bi ko ñor. doo ko dégg ci ay caaxaan. soo ko déggee màggal màggal nga koy dégg ko koy Soxna Aïda. mu sëriñ Béthio. di ko jox wàccuwaayam. di ko nuyu bu baax a baax képp kuy murid rek maa ngi lay nuyu. foo nekk ak foo nekkul maa ngi lay jox sama loxo di la nuyu. te tamit ñu waxtaan tuuti ci ci Sénégalais yi. ñu xam jigéen ak góor. suñu borom moo wutale loolu jigéen ak góor. des fois jigéen yor melokaan melokaan boo xam ne. melokaanu góor la. melokaanu góor c'est-à-dire mooy lan kuy dimbalee nit. di jàppale nit muy góor ak jigéen nit kuy jàppale nit rek. di def lu baax ci réew. di wax lu baax ci réew di dimbali ñu xiif ñi ñu mar ñi mhm. ñu nekk ci hôpitaux yi mu dimbali leen mhm. ñu nekk prison mu dimbali leen mhm. kon kooku ak foo mënta nekk ci àddina muy ngay waxkat di wax lu baax da dem ci ba ci moom ne ko jërëjëf yal na yàlla fay man li muy def lu baax te mënu koo def ma gis ni moom moo koy def moo tax ma déplacé dem ba mbuur ne soxna ay da jërëjëf yal na la fi bàyyi te nag nan ko ñaan parce que buñ ko ñaanalee taalibe ñi nekk ci prison dootuñu xiifal ñi nekk ci hôpitaux yi mhm. ñi nekk ci am na ñu nekk prison yoo xam ne dañu jël mhm. am ne dimbali mhm. da leen di dimbali seen ordonnance mu dem xool di leen dimbali taalibe yi seddaay bàyyi ñoom mu jënd leen ku ne mbàjje piil godaas jënd leen lu ne caat na jënd leen pâte dentifrice ay plastique lu ne mu jënd ko nga xam ne bëgg na Sénégal avancé soxna da na nit ñi bàyyi ni la yàlla def ni ñu doon ko war a nangoon ne borom moo def nii nga def soo jiitoo ñu ne yow la nga nekk ci arrière ñu ne yow la nga jàdd ñu ne yow la nga dëngalu ñu ne yow la suñu borom moo la def la ak cheikh bi moo la ko ñaanal muy cheikh bi moo la ñaanal nii kenn du la yërëm te doo sonn mhm. su ma waxee loolu pare damay tëj wax jëpp mhm. ah. yu bëri dañoo yaakaaroon ne bi ngay dem ci moom comédie la wala caaxaan waaye tey dama ñëwaat Pawlish nga gën a confirmer gën a dëggal li nga xamante ni mooy jàpp gi nga jàpp soxna Aida ndax bi ma ñëwee tey dama fekk nga jël photom bu mag boo xamante ni tey da nga ko defar taf ko sa salle sa oto aussi nga def ci li nga xamante ni moo di palaagu soxna Aida pour gën a euh, confirmer waatal rek sénégalais li ngay woote ak li ngay wax ci moom dëgg la bëgg la ak yëg-yëg ak fonk dama ko bëgg dama ko dama ko fonk mhm. te nag mhm. fii nii incha allah mhm. cant yu mag cant soxna Aida laay yu mag a mag ko bur ba bur maa ki koy def te incha allah dinaa ko def incha allah kuy def la baax danga koy delloo njukkal waaw gisoo euh, waykat yi waykat yi de fois ñu defal leen ñu delloo njukkal mbëri des fois ñu doon leen dugal. leen hommage footballkat yi des fois ñu rendre leen hommage man am naa droit nag rendre kii def lu baax kooku jël rendre kii def lu baax di wax lu baax dimbali nit ñi. Mhm. naa la rendre hommage ba du ma xam ne rendre hommage je vais bàyyi de couille dinaa ko def nag dama laa bëgg. Mhm. je vais tap. nga mhm. boo bëgg waaw. da koo bëgg. yàlla mbëggeel gi sax seen diggante mooy tudd Chepa Blanc. Hmm? dina woowee soxna Aida soxna Aida serpent blanc. parce que dafa dugal serpent blanc parce que il est attirant ba pare ay bëñam daa weex tàll. Mhm. te buy xool day lamsal moo tax mu rafet soxna Aida serpent blanc ah. macha allah wax sa taaru sëriñ de jàpp naa ni dara nekku ci de ah waaye tamit di kontaan bu baax rek ci li nga xamante ni tamit nuyu na ko soxna Aida ñu koy nuyuwaat bu baax di nuyu ki nga xamante ni moo di jëwrinam di sëriñ Saliou Samb di suñu wóllare di suñu xarit ñu koy ziar bu baax a baax waaye Pawlish. au ah, oh, oh, moins droit tudd ki ki ki ko fonk. Mm-hmm. xam ne yaayam rek a ko jot ci àddinaam. Mm-hmm. loo ko wax mu ne bëgg. Mm-hmm. Cheikhul Khadim. bu mel noonu ci yaayam. xale bu fonke noonu ci yaayam. xale boobu dañ ko war a ñaanal. yàlla yaayam. bu ko neexoon tey jii de. mu def lu ko neex. Ibrahima sëñ Ibrahima bu soxna Aïda sa frère. mu neexoon Ibrahima def lu ko neex. Uh-huh. mais dani ma Pawlish mu ne moom sama yaayam mu ñor ak Cheikhul Khadim ak xasida yi jantal na. Mhm. macha allah rafet na bu ko neexoon dugg ci oto yaayam di def di ja yooyu jaa almadi mbuuru soriwul. Mhm. dugg ci casino yi def lu ko neex te nag boobaa da kaa war a def parce su borom mhm. ma Pawlish ko su ma nee di ko ko taalibe yi ni ñu lekk parce que Seexul Xaddim rek ama ñor nga xam ne yal na ko yàlla bàyyi ak yaayam. xawma ko mais keroog da nga ñëw wan ma vidéo yoo xamante ne ni muy sonnee doo ko sax jàppee. doom ci kër boo boo boo ko xamul da nga teg policier ndeysaan moo gënoon a mën a sol bàyyi laat de mhm. wala mu sol jaset waaye tëni lay sol mhm. ni garde corps yaay mi amee mhm. noonu lay garde yaay nga xam ne yaa fonk sa yaay barke Seydina Muhammad yaa fonk sa yaay te sagal sa yaay waaye yal na yàlla baag sa yaay. nga def nii dara ëpp ko ci àddina. li nga def nii. kenn du la cëram de kenn du la ci ñeex. suñu frère a baax a baax ah, moom mi nga wax ci moom la ñu mën a seede ah di ko ñaanal rek liggéey bi mu ànd ak yaayam yal na ko gën a jàppale ba mu yeggali ko ba fi ñu fi liggéey bi yegg fa rek yàlla na fa yegg waaye Pawlish actualité bi nga xamante ne nag moom laa bëgg ñu waxtaanee ko jamono jii démb ak tey ak. ndeyloo démb moo tee actualité bi rek nga ne ndeyloo. waaw li tax moom nag euh, toog na ci télé bi. déclaré la amour. wax sénégalais yëpp nag yow la bëgg. bu su ko bëggee saa bëgg na feeñ te nag àdduna nag li war a ànd ñoo war a ànd nag ci àddina nag. Hmm. mbër ak ñooy ànd. dëgg la gaynde gànn ñu ànd segg ak segg ñu ànd. Hmm. rab ak rab ñuy ànd micro micro ñuy ànd. ci lu leer omo omo ñooy kawas ak kawaso yi ànd ñaari pat kawas ñaari pat kawaso yi ànd mm-hmm. ñaari pat daal ñaari pat daal la ànd ñaari dof nag ñoo war a ànd dof la man dof laa mm-hmm. te dof bu am taat la eh. li mu gën li ma gën a bëgg mooy dafa am taat dof bu am taat la mm-hmm. te man damaa bëgg taat hmm? en plus ay weenam macha allah dafa rafet dof bu jekk la hmm. dof bu def dof dof bu neex a nekkal la te leen kay laay xalaat ci moom jongee parce que man damaa bëgg ko sama ween bi ku ko seex bu ko seexee rek dama koy gën a bëgg weenu gauche bi attanu ko yow miy dof dof est-ce xam na xam na weenu gauche boo bëggee amee sama weenu gauche bu ko bàyyi boo ko moom loo bëgg ci ko am te dinañ génn génn mu neex ma takk la takk bu takk takk la ci fara takk su nag Mouhamad dama lay takk la boo jógee dama takk a génnal a pare naa pour génn pare naa pour takk la jabar parce que mérite nga pour ma takk la parce que li wut jigéen mi ci yow mhm. galant mignon. Hmm? coquette. Uh-huh. coquin jekk say wen macha allah say taar rafet nga am ay cuisse pare naa pour génn yow incha allah. ot pare naa pour génn. mais mais Pawlish est-ce que tamit li ngay wax nekkul ay caaxaan parce que moom keroog bi mu jàkkaarloo ak suma frère bu baax boobu xëcc maa ngi koy moom dafa taxaw euh, ci kanamu sénégalais yëpp wax li nekk ci moom yooyu tey nga confirmé ko ndax confirmé bi nekkul ay mbalak wala caax lan moo nekk ci moom te muy jigéen li li jigéen Anse. Chris. Hm. Hm. Zoray. mais par exemple jëm hm. nañu waaye. par exemple Habib Abian. mais est-ce que xam nga ne yéen ñaar seen couple couple bu sénégalais di bëgg. couple waaye man dof bu cagalaa de. dama koy teel a dof bu ca dof dof bu cagalaa. dama lay wax de. dof bu cagalaa de. dof bu dama ko dof bu cagalaa damaa caga trop. i baisse trop. damaa caga de dof bu cagalaa. trop. dof bu caga la ah, defan attention ci dof fi de dof bi dama caga de. dof bi xam na lu baax de xam na lu neex de. Mhm. yaa yaa ngi jëlee attention génn dof par exemple génn yow waaye dof bu cag dof bu bëgg sexe na wax naa la de. Mhm. par exemple génn yow de. Mhm. waaw baax na ñemee sexe rek boo ko ñemee dañuy yàgg de. mais yéen ñaar seen mbëggeel na ngeen ko nar a dundee. mbëggeelu dof mbëggeelu neex parce que dof la def. waaw <laughs> waxoo fi wax dof de. Ah, dof bëgg lu baax. Ah, ah, bëgg lu baax dof bëgg gën a xam léegi mosoo gis dof naqare dof yëpp a neex gisoo ñuy fekk dof yi ci benn di leen jàpp di leen yóbbu kilifa yi dof lañ gën a bëgg ci àdduna des nga romb kilifa ba ci kii di xool dof rek di xool dof rek. Hmm. kilifa yi da nga gis ñu teg seen son amilo wëkkee dof dof ciki sali ciki doof doof ami bekki wéradi ami bekki wéradi wébépp dofeep ndabépp am na ñoo xam ne dof lañ dof am na kii dafa xam dof heure bi ñu ngi nekk ci àll bi di wër dof yi hmm? mosoo gis dof fu naqari léegi nag yow dof bi ñëw ba ci yow ne dof mag bi la nu waaw dof bu naqari mu soo ko gis mu dox dof it bu jàpp dof bi sangale ba hmm. ba yoo xam ne bu ñu juddoo dañuy taaye parce que ay patron yi ñoo koy bàyyi mais nag dof yu bëri yi leen ëmbal hmm. ñu romb ci mbedd di leen leen ëmbal rek léegi nag kon nag boo ah boo jëfandikoo dof te dof dafa am lu nekk ci laatam barke la dafa neex Bessé doxo boo Bessé dox xawee dafa ne waay. Mm. Bessé dof. mu ni Bessé dof. Bessé dof. <laughs> waa léegi ma wax ma loolu tey tey yow pare nga pour takk ndeyloo ci bu la nobee ci ni nga ko waxee euh, bu la nee sax nob nga ko nii mais pare nga pour takk ko ci bu joŋewee. tey koo mel ne moom moom noo noo mën a maîtriser rek soo mën a maîtriser c'est ku doy waar. day nag day dama koy wax Sénégalais dama dama tiré prévenir man damaa càgg dama lay tiré prévenir damaa caga trop. damaa caga lool dof lu dof bu cagaa ngi nii. xanaa nga jéem a caga rek waaye dof bu caga laa de. boo cagul sax daal jàkka caga. ah déet ci bés ah, ba combat bi say loxo la taxawee ak sa plateau la taxawee. Euh, bis bi si yàlla maye doom xanaa moom ngeen koy tuddee. dof laa koy tuddee de. ngeen ko tuddee xëcca mi nga xamante ne fa la fa la say. takko dof moom bu jëlee doomu dof dof la koy tuddee. waaw mais man loolu nag sénégalais nar nañoo sonn de wax dëgg fa yàlla nag. dofu Pawlish Mbaye rek madame la ñuy mariage kii yoo way. kan ci xale bu xale bu mën a way xale bu jigéen bi. bu jigéen ban. ku ñuul ki rek. xale jigéen yi mën a way ci réew mi dañoo bëri de. kenn mën a way de. kan bu leen faale bul tabata daxal sa tax. <laughs> yaa bàq yaa yaa daxal sa tax. ah moom ngeen ne woo mu ñëw way xew. maa ngi duma leen faale moo koy moo koy way ma daan. ah kon nag sénégalais nañu. waat Kër laa def garçon d'honneur bi Ousseyn. waaye nag mënu dox loolay problème xanaa ñu wutal ko ay xanaa ñu wutal ko ay carton rek. du wala ñu opéré ko avant moom mu ñu opéré ko bu ko dóor Ousseyn day daanu. Mhm. waaw mais nag nga bëggee tey sénégalais tey comme que Ndeye Lo macha allah ñu na euh, débuté li nga xamante ne aussi moo di carrière si wax dof naka nga bëggee sénégalais teertoo ko téewee ko. kon nit ma téye. naaw ñu téye ko parce que waxi dof moom bu ci génnee day xewi na jàpp ci waxi dof kon ni ma jaay ba am ci lépp piscine nager voiture voyaging visa alors rapport yëpp maa ko ci am kon na jéem mhm. am loolu. xam nga ko xew Ndoa ah, ni nga xamante ne nag noonu la Pawlish Mbaye wax euh, déclaré ki euh, ki nga xamante ne moo di ndeyloo déclaré amuram man nag ma ñëw seeti waat sama frère bëgg nag moom it mu wax sénégalais dégg ko li mu wax nag sénégalais yëpp dégg nañ ko yaakaar naa. un point un mhm. tiret. Mhm. pare nga amu dof waaw yi mhm. mbokk yi jërëjëf yaakaar naa ni lii rek laa bëggoon Pawlish Mbaye toog leeral sénégalais di kontaan di leen jox dig day si beneen numéro jërë ngeen jëf.